asalaamaaleykum Sénégal man la wuli wuli waat dama ne maa ngi wax mbir yëpp nañu abonné ci wasaare lam parce que wasaare lam am na solo jël lam boo wasaare ko ci réew ak bitim réew waa li neexul ci wasaare lam. asalaamaaleykum salaamaaleykum mbokki internet yi mbokki amateuru lamb yi. yéen ñi safoo wasaare làmb di fi taaxirloo xibaari làmb yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen wax ne leen dellu na nañ ci seen numéro jàngat làmb muy deuxième numéro bi euh, mbokk yi tey ñu fas yéene ànd ak yéen comme niñ ko defee woon keroog euh, jàngat ak yéen làmb xool lan mooy rëq-rëqi làmb yi lan mooy gàllankoori làmb yi lan moo lan mooy li nga xamante ni tey buñ ko renforcer làmb jëm ci kanam ak lan ak lan lan lañ jàpp ne bokkut ci làmb dañ ko cee war a jëlee niñ ko defee woon keroog tey dañuy ñëw nag uniquement jàngat bi ñu réserver ko lutte sans frappe muy làmb simple làmb simple bi mbokk yi bokk na ci làmb ji ëpp popularité fi mu nekk nii ndax amateur yëpp. manko nañu bëgg ko di ko suivre tey lutte avec frappe bi am na ñoo xam ne nii sax euh, tele lañ koy seetaan wala activé wuñ ci ñu bu baax a baax te boo leen xoolee ay vrai amateuru làmb lañ mais lit sans frappe la ñuy topp fu mu mën di nekk ñu dem fa mais képp kuy topp lutte avec frappe rek bëggaale nga lutte sans frappe donc lutte sans frappe bi mooy base bi mooy lépp moo tax tey ñu bëgg a def jàngat bu yaatu ndax li olof di wax liy raam ci ñag bi la jëm. te bu fa dëkkee bu fa duggee am fa kër lii di raam nag di ñëw ci lutte sans frappe ñaanuñu yàlla mu dugg ba fi am kër loolu lan la mooy lu yàq làmb ci lu yàq lutte sans te dara waralu ko lu dul ñun acteurs yi ñun promoteurs yi ñun mbër yi ñun ñoo bëgg indi loolu instauré ko ci biir làmb ci te warut tey mbokk yi gis nañu làmb lutte sans bi boo ko tuddee. sa xel day dem ci ay ténor yoo xamante ni nii ñoo ci nekk VIP yi ponkal yi ñi nga xam ne tey bu ñu bëree mu neex bu ñu dongalee mu neex bu ñu feccee mu neex mën nañ cee jàpp ku ci mel ni Serigne Ndiaye 2 ku ci mel ni ñoom Thiaw Sow ku ci mel ni tey ñoom Moussa Ndiaye ñu gën leen a xam ci hôtel joor ku ci mel ni ñoom Pakala ñoom Ngel John ku ci mel ni ñoom euh, ñoom ñoom général Malika ñoom ñoo ñëpp ay VIP lañu yoo xamante ni ci làmb lit sans frappe boo leen tuddee fu ñu war a tase foofa day toj. foofa day neex foofa day bënn kon ngel yi nañu fexe mbëri di tase ci benn bërëb tase ci benn barab bu ma ko waxee nag mooy am na xaajalikoo bu commencé am daloon na lit avec frappe indi woon ay problème problème mu soit yenn promoteurs yi da ngay gis am bas mu ñëw jox menn mbër avance keneen jaar ci suuf proposé ko lu ëpp loolu ñu dem ba loolu commencé yàq làmb mais heureusement promoteurs yi retrouvé wu nañu ci benn bii mooy doxal làmp kenn bañ a lor kenn ñu def seen association ñu leen di nuyu di nuyuwaale le président muy Pa Abdou Fall di nuyu waa association bi yëpp képp kuy promoteur nuyu nañ la. ci loolu mbokk yi ñu gis ne mu ngir am di ñëw ci lutte sans frappe bi nan lay ñëwee mooy tey gis nañu benn xëccoo boo xam ne commencé naa am ci promoteurs yi du xëccoo ci ay mbër mais. concurrence bu metti xëccoo ci ay journée moo commencé am ndax le trois novembre bi ñu génn gis nañ loo xam ne jëmalewut làmb kanam rawatina lutte sans frappe yàqut làmb nag lutte avec frappe moom loolu yàqu ko mën nga tëgg fii ci Pikine ma dem tëgg ca parcelle kii tëgg ca Guédiawaye amul benn problème yàqut làmb mais bu duggee ci lit sans frappe mën na freiner lu baree baree baree bari ci la ñuy ñëw mu leer keroog 3 novembre ca terrain gaal gi gis nañ fa benn mise deux millions cinq cent mille francs loolu du lu ndaw du somb ndaw mbër mu ko dégg da nga takk ngemb daw dem foofu parce que mbir la. ci même jour bi le trois novembre boobu ca eh, eh, ca Adrien Senghor gis nañ aussi ki nga xam ne ñoom ñooy walla wala Mbingaan Sañ proposé fa un million loolu aussi mise bu baax la mbër mu ko dégg war ngaa daw takk ngepp donc ñaari journée yooyu ci benn bés ku mu naqariwutin ñun moom naqari nañu. ñun amateuru làmb yi d'abord avant ñuy nekk ay reporter sportif wala ñuy nekk ñuy topp làmb loolu metti nañu parce que nag ñi ciy loru ñoo bari te ñi ciy gañe dinañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo ngeen comprendre kan kan ñoo ciy loru ak kan moo ciy gañe tey ci journée yooyu bi nga xam ne moo am gaal gi bu Jax production gis nañ fa Ngel John gis nañ fa Pakala gis nañ fa Pape Maroon gis nañ fa Selemele gis nañ fa Aada Dieng euh, gis nañ fa aussi Mbaye Ndour Ibou Ndiaye ñu gën goo xam ci Obali Moussa Diop mu nga fa woon mooy euh, Serigne Ndiaye de gis nañ fa général Malika ak Demba Faye Pape Demba fay donc ñooñu ay mbër lañ yoo xam ne kenn dootu leen présenté ci lutte sans frappe boo demee ca terrain Gaal euh, ca Adrien Senghor aussi ci même jour bi même heure bi da nga fay fekk ñoom caaw Sow. fekk fa ñoom Amène Ndiaye fekk fa ñoom Ibou Senghor 2 fekk fa ñoom Moussa Ndiaye ñu gën koo xam ci hôtel joor fekk fa ñoom Blindé donc loolu ñoom aussi ay mbër lañ yoo xam ne kenn dootu leen présenté mais imagine leen tey mbër yooyu ma tudd yëpp bu ñu leen amoon ci benn journée mais làmb dàqut loolu mais ñëpp ñoo ci gañe ku ñëw danga seetaan ba sa yaram mandi làmb wala ku fa ñëw da nga seetaan ba say bët saf-saf ak làmb mais loolu loolu ay journée la yoo xamante ni war nañoo fexe muy am war na nañoo fexe def suñu kéemtalaay kàttan ba ponkal yooyu di tase ci làmb mais bu ñu seetaanee lii di ñëw ko bi ñaari journée ci benn ci ci benn bés. ba pare diggante bi sax sorewut diggante bët ak bakkan la terrain gaal gi ak Adrien Senghor sorewut bët ak bakkan la donc bu fii di tëgg fii di tëgg ci même jour même heure mën na indi ay gàllankoor yu bari te ñu mën cee lim bi ci gën a gàtt rek. muy euh, meroo wala xeexoo bu war a am ci biir ci kan kan mooy ci promoteur yi parce que ku ci nekk boo sañoon boo organiser dara du la yàqal sa journée day dox day neex mais bu xëccoo amee rek xeexoo mën naa xuloo mën naa mais it mbër yi bëri na luñ ciy perte mbëri liñ ciy perte mooy tey bu fekkee ni promoteur bi woote adresse Senghor amut xel dina mere bër yu bëri yu dem terrain gaal gi parce que nag am na mbër yoo xam ne nii tey ñu ngi bëree final di bëre lutte sans frappe ci yenn journée yi ci yenn programme yi ci yenn gox yi seen kóllëre ak seen ak promoteur ba moo ko waral promoteur da leen di woo ñëwal bëree sil ma jaral na leen sax dugalal la paas nga ñëw bëreel ko donc yooyu yëpp ay kóllëre la yu am diggante mbëri ak promoteur mais bu ñu demee ba bër di am problème mu soit yàlla nag bu mu doon ñaari promoteur yoo xam ne ku ci nekk seq nga ak moom teraanga boo sañoon bu organiser journée nga dem bëreel ko mais bu ñaari journée yi tasee nooy def. da ngay obligé xool fi sa intérêt nekk fan la sa intérêt mooy fi ma jàpp ne tey bu ma fa demee danaa jël la fa nekk moom mooy première euh, critère bi deuxième critère bi mooy fi ma jàpp ne tey moo ëpp xaalis même bu ma jëlul la fa nekk bu mu finaaloo danaa am loo xam ne nii dana tollook la ma waroon am ci beneen journée ba donc loolu bokk na ci li nga xam ne nii dana metti pour mbëri choisir fan lañ war a dem beneen bi mooy tey bu fekkee ne amateur bi la bëri na lim ciy perte man mënumaa baagante terrain gaal gi ak Adrien mënumaa nekk au four et au moulin comme ni koy gars yi waxee mënumaa war mbaam war fas mënul nekk da ngay mën a nekk Adrien Senghor nga ne fa seetaan mënoo ko nga dem teere gaal gi seetaan te loolu amateur bi moo ciy perte parce que bu sañoon benn làmb du ko raw journée yëpp lay seetaanandoo loolu bokk na ci li nga xam ne gàllankoor la presse bi aussi ñi nga xam dañuy activé wu ci làmb gàllankoor la ci ñoom. ndax tey boo nekkee organe de presse boo xam ne sa doole demeewut noonu benn événement nga mën a couvrir tey mënoo baagante mënoo nekk à cheval daw dem nekk adressé wala nekk terrain gaal gi mën a couvrir ñaar yëpp te pourtant am na ñoo xam ne tey lépp lu neex ci làmb ci yow lañ koy seetaane buñ sañoon lu yëngu ci làmb rek nga mën koo am mën leen koo jox donc loolu ay gàllankoor la euh, mën nañ ne làmb ji aussi lim ciy perte bëri na parce que bu mbër perte amateur perte promoteur perte làmb perte na. kon loolu war nañ cee def jàngat bu yaatu man ñi ma jàpp ñu ciy gañe mooy mooy arbitre yi parce que bu fekkee ne fukki arbitre ñoo fi nekk aussi arbitre bu ci nekk bu ñaari journée tase forcément dina arbitrer te loolu avantage te loolu lañ leen di ñaanal sax ñu bañ a toog di arbitrer parce que ku ci am sa licence wala nga am ci sa sa sa sa sa attestation wala sa diplôme li nga bëgg mooy di arbitrer ñu nit loolu lañ lay ñaanal ngay arbitrer donc mën naa ne à part ñooñu ah, ñi ci des ñëpp dañ ciy perte promoteurs yi dañ ciy perte amateurs yi dañ ciy perte mbër yi nag ñoo ciy gën a perte parce que euh, tey fi mbër yi war a tase combat yi bëri neex mbër yi fa tase. xaalis bi aussi kii dana teg lii kii tegle kii ëpp kii kii ëppale kee ainsi de suite mbër mi am problème mu choix ak yooyu yooyu yëpp da ciy am amateur yi gën cee perte parce que soog yi gënoon bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mën nañu sax ñàkk am parce que tey Serigne Ndiaye da mën naa dem ci journée bale Pakala dem ci journée bee bu boobaa tey ñi ñi ñu ngi doon xaar diggante revanche su Serigne Ndiaye ak Pakala fan lañ koy gisewaatee yeneen i journée la ñuy xaaraat tey ñu ngi xaar général Malika ak Pakala seen revanche encore général tey par exemple mu nga teeree gaal gi euh, Pakala mu nga Adrien Senghor fan la ñuy tasewaatee te ñu ngi doon xaar revanche boobu donc yooyu yu ñu war a bàyyi. te loolu mën naa ne dina répété waat. parce que li tax muy répété waat mooy tey le 24 novembre bi ñu dëgmal Adrien Senghor amaat na. Elisabeth Diouf Elisabeth euh, Diatou Sarr moo fa dem tëgg fa journée teg fa un million ci même 24 boobu noonu nekk dimanche fële ci adresse euh, ca terrain gaal gi aussi gis nañ ne Jax moom moo fay delluwaat mise ba di 2 millions 500 donc même problème day dellu si waat gars yi lii nag day jar ñu daal di def taxaw seetlu xool ba xam ndax journée yu daje yu jege yooyu noonu. jar na ñu koy bàyyi di ko cautionner wala dañ cee war a teg tànk ba mën promoteur bi di organiser ci anam ba mu gën a neexee ndax bu nekkee lutte avec frappe ak lutte sans frappe yu dajee ci benn ba sax mën naa ñàkk a indi problème parce que amateurs yi mën nañoo bañ a bokk mais ñaari lutte sans frappe moom ci même même même xam ne ni soreewuñu sax un kilomètre doxut seen diggante est-ce que 500 mètres sax dox na seen diggante loolu donc ay gàllankoor la yoo xamante ni mën naa jur lu bare baree bare bëri kon ñu bàyyiwaat ci xel ñi nga xam ne ñoom ñuy activé wu ci làmb ji ñu bëgg ñu xoolaat loolu vérifier waat ko doxaat ci ay jéego ba li rey lutte avec frappe bi bañ a rey lutte sans frappe bi ñuy jaajëfal bu baax suñu grand Chérif Atkhana Fall mi nga xam ne euh, mbir mi yuuxu na ko jooy na ko ci page Facebook am mu ngi koy jooy feneen ak feneen ci débat yi nga xam ne nii mu nga fay toog donc mbir la moo xam ne moom bu sañoon làmb ji kenn day tëgg ñëpp ñëw keneen tëgg ñëpp ñëw mais pas ñëpp di tëggandoo bu ko defee jiixi jaaxa di am ci xelu euh, amateur yi loolu la woon mbokk yi jàngat boobu lañ leen indi loon ñu bëgg ñu def ci taxaw seetlu ñun ñëpp xool naka la gënee naka la naayse naka la gën a rafete ñu defee ko noonu ñu leen di jaajëfal bu baax di leen ziar encore leen ne fii lay xewe saa su nekk ci wasaare làmb ñëw leen ngeen abonné ci suñu chaîne bi lépp luy xew-xewu làmb ci tàng-tàng bi ak lu ci mën di doon fu mu mën di nekk danañ ko jël indil leen ko ñu jaajëfal suñu caméraman yi rawatina Adama mi nga xam ne moom mooy ànd ak ñun saa su nekk image bu rafet bu leer bu ngeen gis Adama géey la jërëjëf Adama mention spéciale jaajëfal waa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 xam nga jili jili kebe ñaara ko dab tur wi day na jili mbay san bëree ñu ko kebe ñaar ñi ko seex jili kebe ak sëñ Basiru waaye lii neexut ci tur mag tur yu mag yi waa lii ci jili kebe sëñ Basiru waaye ak jili kebe sëñ Basiru Diouf waaye lii neexut ci ñaari tur yu mag yi ci Wassare Lamb de presse bu neex meneef bu neex ku bëgg gis image yu leer caméra yi nag jógewul Sénégal États-Unis d'Amérique la jógee set wicc leer nañ lii neexut wasaare lam wasaare